asalaamaaleykum mbokki télé euh, mbokki internet yu Guédiawaye info ak ñëpp ñoo xam ne rek ñu ngi suivre Guédiawaye info ci wala fu lu mënta nekk ci àddina bi rek tey ñu ngi am mbégte ak kontaante ñu dalal Cheikh Omar Dia muy borom xam dëkk tey fii ci Sofraco euh, Sofraco euh, fii ci Sofraco Guédiawaye Sofraco gannaaw loolu ma jox ko mu nuyoo su nuyoo pare question boo bëgg a mooy kan mooy Cheikh Omar Dia gannaaw ba nuyoo ba pare.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 sunu bay jangal ñu ba wacc alquran fi mu jël ñëpp yobu ñu kokki daari si mot sa xirlu yàlla sunu borom yok leeram te tax ñu ci barkem te yeeram ko. mu bolé won ñoku ne wax Idrissa ñu doon jang ci mbar ma lañ jangé bu man alquran ñew fi yàlla dogal ñu jang nañ fi ay métier yu bari bu am ci ay diplôme comme ñun ay doomu sëriñ lañ ñu mujj bayyi lool yépp dugg ci àll bi dugg ci réew yi dañ nañ lu jégué ñaar fi réew yok sunuy xam-xam bolé ak lu xam fi ak lu ñu doone suñu baye ak suñu maam daal kooku mooy sëñ Omar euh, sëñ Omar euh, euh, waaw xamu ñun rek lañu xam ñun rek lañu xam ñun rek lañu xam biñ ba xam-xam dinañ ko doon mais li nga ci def pour mu ci dugg degni iswaram ak Déthié <coughs> Fa man sama mam, mooy Amary Boubou Dia Déthié Fa Ndiogou tudde nako domam bu ni wax umri ngone Sabel ci tax mu tuddu ko man sama mam danaa dem di ànd ak ay talibem di dox rek di mang di ubi dine di ubi ay daaraam bi ñe ñëwee ba dëkku dëkk Déthié Fa Ndiogou ñu fa ñew jamonay nawet bi mu ñëwee yàlla ñëw fa ji fanane taw mais mom kan bi mu da yor fu musa defé cercle ni rek yalla ji dina taw ba sebet mais cercle bobu fa lay toog ay dongam donga ndox du ko lal légui bi bu mu fofu bi nit ñi di dem tol si la ko si la ko dag si la dagg yi ne ci fa ñu ak dong ñeñu tok ay serigne nek fofu mais xamna taw tawte nañ mais bi ñëwee fekk ne taw taw bi lalu len dañu retourner wat ñu retourner dañu dem waxo ko bi buur lu bi mu ngi fekk jigéen ñi dëbb comme ñooñu rek di dëbb seen dëbbu njël yooyu maanaam am na sa ku ñuy wax Ngóone Njaay bi mu kànnangee la ko sama maam ne jëlal kii soo ko jëlee dina jël dina jur buur boo xam ne dina ilif kajoor dina ilif bawal mais bu heure bu amee doom bu góor soo ko jëlee su juddoo na moo ko tuddee loolu moo tax dee fa njoogu tudde sama maam amari boobu ñun nag ay boromi lasaraar lañ borom xam-xam ñun xam-xam rek lañu xam ci la ñuy dox ci la ñuy kii. voilà ci lasaraar boobu boo xam waaw lasaraar moom xanaa lasaraar moom <clears throat> xanaa cof si tey cof bi du jër xóot xam nga asraar moom mooy lépp xam-xam mooy lépp mooy li nga xamante ne ni ci la nit ki mën a jaare mun a am lépp fekk nit ku yàqu mu defar ko fekk lu defar lépp daal mi moom mooy asraar ñun nag dañuy liggéeyee lasaraar lasaraar bi ne liggéey it suñu boroom dimbal nañ ci dimbal goo xam ne dañ ciy def di ci dindi lasaraar nag tur yàlla yi rek la mais tur yàlla yi am na ñu koy liggéeyee ba nga xamante ne mi ngi mel na bopp bopp saxaar rek boo jël fukki wagon ak ñaar wala téeméeri wagon takkal ko ci benn bopp bu ndaw maanaam bopp bi day yóbbu wagon yëpp asraar rek noonu la nekk ci biir alxuraan rek dafa nekk loo xam ne day day day day day yokk puissance waaw day yokk puissance daal ci yëf yi waaw. waaw nit moom bu tëlee te du tëggoo xam ne da koo judduwaale incha allah bu dee dañ ko takk xala dañ koy dind bu dee rab da koo jàpp dañ ko dind bu fekkee feebar la boo xamante ni dafa nekk ci moom it dañ koy dind dind bi it du dañ lay jox garab rek ne la am naanal soo naanee rek yëg sa bopp bu subaa mu dañ non non dañ la ko traité fajal la ko ba mu wër ben nga xamanteni bo paré da ngay jëlaat ak sa sago bu lay dal kañ leneen tay nekkat fièvre ñew lool ki la mais fièvre bo mom day tàqali ak yow si kàttan yàlla non mu na baña a même pas 15 jours hein parce que mu na du passé fukki fan parce que garab yi ma lay jox fukki fan nga koy nan soko défé manam traitement bi jeex manam lu nekkon si sey si sey si sey sidir rek manam té ko dëgër dina dëgër li tax tamit sa deret wara mëna daw ba ag sa sakara mu mu mel ni mu wara melit bu boba loolu dina dox ci kàttan yalla traitement boobu garab waaw garab gi nag ay garab la yoo xam ne dañ koo boole muy garab yu bëri yoo xam ne dañ koo boole rek composé ko ba am benn dose bu ñu soxla ci garab yooyu muy garab yoo xam ne day faj. day faj moom carrément mais du loo xam ne da lay jox tey nga yëg sa bopp rek bu subaa nga wuti waat ko moom da faj ba nga mel ni nga war a mel si voilà da lay waaw da lay faj définitivement waaw ci wàllu yàlla mhm. euh, macha allah nit ku nekk ci loo nekk bëgg mu mu si kàttanu alam mën nañ ci def ñaan bu baax a baax a baax muy da nga am sa ay entreprise muy da ngay footballeur nga muy mbër nga mu muy da ngay xëccoo loo xamante ni maanaam da nga ci bëgg a jot muy affaire nguur yi àdduna yi ak yooyu yëpp xam nga ku ne ëmëri boobu ca mooy sa maam rek kooku dafa doy dafa doy maanaam adresse boo xam ne ku ko xam rek dina xam ne sëtam moom war naa mun lu bare bëri macha allah. mais nag bëggoon naa xam ci wàllu nguur xam nga dañuy ci dañuy jëm ci échéance ay élection. Mhm. ci yoo xam ne fal la ñu mhm. lan ngay wax. macha allah nee naa dañuy fal ci kàttanu yàlla bi dinaa ba yàlla weesoo dañuy fal bu baax xam nga nag qulillahuma malikal mulk tuutil mulk man tasha yàllaay xool ku ko neex mu jox ko nguur waye nit dina ñaan yalla bay ba limu bëgg yalla defale ko ni ko bëgg lool ñaan yalla day def lool ay te dañuy ñaan yalla bu baax a baax macha allah. waaw xaatim dafa nekk loo xam ne dafa kéemaane manam expliquer expliquer ko day jafé manam mu na la wax ci ñaari khatim rek wax la ci khatim musallas ba noppi wax la ci khatim sulayman xaatimu salas fi mu toll nii gis nga xaatim juróom-ñeenti bët yooyu nga gis xam nga nit ku nekk juróom-ñeenti bën bën la la yàlla def ci yaramam nga xam ne boo xoolee juróom-ñeent gi nga juróom-ñeenti bëtu xaatim yooyu juróom-ñeenti tur yoo xamante ni si doomu aadama la nekk moom mooy juróom mooy juróom-ñeenti bët yooyu bu dee mu sàllas tur bu nekk am na lu muy lu muy fatt si doomu aadama boo ci bëggee yëkkati doomu aadama mën nga ko cee yëg yëkkati boo ci bëggee wàcce doomu aadama mën ko yëg mën nga ko cee wàcce mu sàllasi xaatimu mu tamit danga ciy folli danga nga ciy faj da nga ciy dindi ku nu liggéey danga ciy dind ku rab topp yooyu yëpp suñu boroom def na daal mi ngi fii ku fexe daal ba nu gisante si kàttanu yàlla moom mën nañoo jëflante bu baax a baax. Mhm. Euh, mhm. cee falee doomu aadama toll nii du far rek mën nga cee fal man nga cee folli mën nga cee maye man nga cee xañe mën nga cee téye nit sax ba ba foo ko téye du fa jóge mën nga ci dot mën nga ci dindi kun dot xaatim dal mën nga ci def manam lo bëgg def ci carton yalla bo xamé xam nga ni nga ko war a defee mm-hmm. <coughs> xam nga ñaan pire ñaan piir la wax de kurus mo koy def du li lay bindal di la jox da fay mottali rek mais ñaan pire course moo koy def te nit ki bu la dugalee xàllo course la dee dugalee xàllo mu ngi mel ne rek yow boo boo fi mu toll nii su ma la doon dugal xaloo ba jël say programme ak say mbir mi ngi mel ne ma taal sama télévision bii rek dugal ci vidéo boo xam ne man man maa bëgg xam la moo si nekk maanaam suñu borom dina ma wan lan laa war a def ba li nga bëgg nga jotti bu dee looy xëccoo wala bu dee loo xam da nga koy dàq nan laay def ba nga jotti ba ba mu daw la yan sarax nga mën def xalwa daal mooy mooy li nga xam ne képp koo man boo dee ñaan moom mooy pay boo ko manee pour dugal ko waaw da cee am solo trop moom da cee am solo trop moom day day bal bal fetal booy dóor la rek moom tëll moom fa mu jaar tàkk waaw xam nga nit ñi seen tabia yi moo bokkul maanaam nit ñi si ñeent xam nga am ñoo xam ne seen biir si ngelaw la nekk am ñoo xamne ne ci ndox am ñoo xamne ne ci suuf am ñoo xamne ne ci safara léegi nak ñent yoy da ci am yu wara and ak yu wara and xam nga ndox ak suuf mom and nañ parce que lo ci jëm na sax xam nga ndox ak safara boko ko bëggee boole nu def du fay wa comme xeet yoy yoy nak da ci am ñu mëna and par exemple ak ñu munta and léegi ñi ci wara and so len leen bu ñu andé dafa dafa wara day day neex mais ñi ci wara and bu ñu andé da ngay gis sey bobu jafé jafé rek lay jur mais du jur ndariñ waaw mais mais mais mais mais sëy kër oto fas yooyu dañ ko war a seet parce que yooyu am si nekk am na loo àndal loo xamante ni gaaf goo xamante ni bu fekkee jub jubluwul ak sëyëf rek pour duggee mën ngaa gis ay gàllankoor. waa faru rab am na ni mu amee ci jigéen noonu la amee ci góor am na góor ñoo xam ne ku nu waxaale ba bëgg leen takk rek sëy boobu day yàqu loolu tamit dafay am. wa lol lol it am ño xamne ne. bien sûr bien sûr nañ ci dimbalé bu baax budé gor gu mu top parce que day top, jigen day top gor budé gor gu mu top meun nañ ko dindi ci katanu yalla budé jigen du mu top meun nañ ko dindi ci katanu yalla wa budé jigen do xamanteni té am dom daf ko jafé manam wala nga xamné ne par exemple feebar moko ko def wala rap moko ko def ak lu ci mën don rek bu ñëwee mën na ko faj amna na jigéen ñoo xam mën nañu am doom mais seen jëkkeur seen borom kër si bopam ñoo dul wér ñooñu dañ leen di faj ba seen mànn yu bi nga tax moy tax ñu am doom mëna baax ba am luñu soxla suko défé ñu am doom ci dal ci goor wala jigéen rek katan yalla mën nañ ko faj wa xam nit mom lepp lu la yàlla moo rek lolu c'est naturel lolu mom kenn mënu kenn mënu ci dar yalla suñu borom rek mo ci mën dara waye mais lepp lo xamne da dab nit ki wala muy bu nek ci mom rek parce que yàlla nee na feebar daafara waaw. kon daal li may déggee mooy képp koo allah hmm. bu la ñun li ñuy def man nañ ko wër nañ lu man ñaar fukki réew te it naa la nee naa la am nañ ci ay ay reconnaissance yoo xam ne du Sénégal ñooñu ko jox ay dëkk yu ñu ko jox parce que jullit bariwu fa te ñoom dañuy bëgg loo xam ne toujours lu ñuy teg seen bët la ñuy doon te yooyu yëpp wax dëgg yàlla suñu borom yombalal lañu ko ba yooyu waa ay diplôme la waaw waaw yi daanaka xam xam nga nit moom ki mo limay may digal nit ñi moy njëkk sel ak jaamu yalla mu leen di digal la nga kep ku bëgg sa wërsëg ubbe ko fo toll wala say jafé jafé di wañé ko digal na la ngay sax ngay ngay taqoo astaghfirullah kep ku ko man chaque jour lu mu bon bon nga def ko 300 314 suñu borom dina la jéggal dina la ubbil ay buntu xéewal dina la may ay yomb yomb hmm. waaw man maa ngi ay way cité ko

70 777 16 28 numéro yi daal képp ku ma ci woo di ma jot incha allah rabbi xanaa di sant yàlla di julli ci yonent bi di wax daal képp ku sunu borom nar a faj aajoom yàlla ñu borom boole si barke alxuraanu karim ku ñëwit boo ma seetsee soo ñëwee si kàttanu yàlla di nga fi fekk xam-xam bu wóor bu leer boo xamante ne di nga ci jariñu si kàttanu yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu